Kébé. waaw man euh, euh, professeur posé waat na la ay questions. balaa may ñëw ci euh, question bu professeur posé fu mu daanelee laa koy <laughs> fu mu daanelee laa njëkk répondre non question yi ma ko posé est que dina ko mën a répondre fii. dinaa si ñëw dinaa damay wax ne rek. Mhm. fu mu daanelee laa njëkk apporter quelques éléments d'information. Mhm. je di dit tantôt c'est vrai Macky pour le moment il est out il ne sera pas candidat mais cela pour autant il faut reconnaître que les périls. reste parce que comme il l'a dit ku déglu bu baax son discours de façon vraiment intelligente di nga xam ni nekkatul candidat mais il est dans des dispositions de Dafantec autrement dit j'ai dit tout à l'heure malheureusement vous ne m'avez pas permis d'aller jusqu'au bout de ma je, le dialogue politique ñu ci bëri mënuñu ci woon dem parce que lii lañ ci séntu woon pour l'essentiel l'établissement politique avait des informations assez crédibles de mois à l'avance le dialogue s'est fait entre des composantes majeures lu ñu nas nas nañ ko déggoo nañ ko ils cherchaient les gens pour les minoriser et valider leur deal politique or loolu objectivement un homme politique crédible du dugg ci sillage yi nga xamante ni say adversaire dañ lay utiliser à des fins de manœuvre donc li am c'est un deal politique orchestré de haut niveau on a pris un peu partout des formations kii xam nga pour agrémenter li ñuy def. sooy xool résultat gi loolu la. la la candidature il a dit on va discuter de questions on a discuté de la question de la candidature pour dire que c'est un deal politique si c'était pour les participants à ce dialogue qui disaient ñi wax ne mbirum candidature da leen soxal moom la ñuy dem poser man lii suma soxalee ma ñëw di discuter ak euh, Diaw ma posé ko mun naa mu bañal ma ko damay constater notre désaccord su ma constater notre désaccord ma ne ko ah man kat préalable bi lii la woon nanguwoo ko yoo may wax mooy nañ bàyyi constitution bi regle ko te <laughs> constitution bi ñëpp xam nañ ku rey Ndofène soo gisee lu ñuul euh, ku Ndofène rey. rey rey sa maam waaw. très bien très bien donc par rapport à ça. Hmm. si les gens étaient assez conséquents dinañ jàpp ni dès l'instant que. la question de la candidature yi jëlu ci ay engagement ferme dañuy retirer leur euh, participation au dialogue parce que sooy xool dans les grandes négociations il y a des préalables yi nga xamante ni au moins dangay naan lii c'est des question yi nga xam ne mënuma ci def concession parce que y la contradiction principale et la contre les contradictions mineures la contradiction principal période boobu c'était la troisième candidature képp ku newoon opposition signé charte F24 dem dans ce su may dialogue ak biram nangul ma ko loolu damay deltu ne waa ne ah mankat lii moom ma yóbbu woon nangulu ko mais en contrepartie bon garaawul nañ xool nuñ koy régler mais nangul ma bokk li ci des amul problème je ferme les yeux c'est des problèmes et malheureusement pour cette même période on s'est rendu compte que la manière dont on les a remis dans le jeu ça s'est fait au détriment des autres yooyu yëpp ça montre que de manière fondamentale l'objectif mooy d'éliminer certains adversaires politiques et de réintroduire d'autres éléments d'autres forces politiques dans le jeu c'est comme si quelque part Macky a dit que bon peut-être que opposition yi su amee doolee bi mu am ba may sonnal y des gens yi nga xam ne j'avais commis l'erreur en son temps je les ai mis out dans le système <laughs> il faut les réintroduire pour rééquilibrer le jeu politique ça peut être une analyse donc yooyu yëpp euh, day jàpp ni dialogue bi sincérité lalu ko dialogue bi ah moo tax demul très bien loolu réglé nañ ko maintenant pour revenir euh, un peu euh, balaa ma ci waaw balaa may kii ci naa tëdd encore ci lii rek waaw non balaa ngay ñëw ci programme bi damay wax ni Macky lu ñuy xaar ci moom mu organiser des élections transparentes crédibles et inclusives okay. il n'est pas question tey doonatuma candidat je vais utiliser ma posture de président de la République pour faire passer mon candidat mais et que aussi nañu bàyyi képp ku bëgg a bokk ginnaaw Macky Sall ku bëgg a bokk dafa war a bokk ku bëgg a bokk dafa war a bokk